daan ziyaare armeel bokk na ci lim leen di wax ah bis na ñëw ñu fekk si leen kon fàttaliku dee moo tax Ousmane ibnu Affan doon troisième xalifa yonente alayhi salaatu wasalaam bu daan ziyaare armeel day jooy ba ñëpp yërëm ko ñu ne ko yow musiba yi di dal ci sa kaw doo jooy waaye saa yoo ziyaare armeel yi di jooy mu ne leen aa ah, damaa dégg yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam wax ne bàmmeel mooy wàccuwaay bi njëkk ci àllaaxira mbokk yi képp ku sa àdduna tukki na yi ñii li ñuy baax baax tey ndax mën nañoo julli ndax mën nañoo woor ndax mën nañoo jàng alquran ndax mën nañoo aj wala ñu umra yooyu yëpp dog na bi ñu génnee àdduna ñun ñi ci àdduna ñun ñoo mën loolu tey ñoom bañ cay toll doon nañ ko def loolu moo leen jariñ ginnaaw bi ñu faatoo ñun it nañu xër ci yooyu ngir ñu man mu man ñoo jariñ ginnaaw bi ñu faatoo ndax bu ñu xasee ba faatu loolu lépp dafay dog kon buñ leen siyaaree war nañoo ku dee xër ci li nga xamante ne moo ñuy xettali moo ñuy tax a mucc ginnaaw bu ñu faatoo mooy jëf ju baax waaye ñu ñaanal leen yàlla ndax kat ñoom actuellement nii mënuñoo ñaanal seen bopp comme munuñoo def lu baax mënuñoo ñaanal seen bopp ndax loola jeex na ba ñu faatoo tey ñun ñoo leen mën a ñaanal loolu day far seen i bàkkaar day yokk seen i daraja day day baril seen i tuyaaba kon loolu mooy li nga xamante ne tey moom lañ leen deseel kon ñu bokk ñun ñëpp ziyaare leen ñaanal leen ñaan gi nga xam ne moom la ñu yonent jàngal bu ñuy ziare armeel السلام عليكم السلام عليكم أهل الديار أهل الديار من المؤمنين, من المؤمنين والمسلمين, وإنا إن شاء الله, وإنا إن شاء الله بكم, للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية yarhamu llahu almustaqdimina minna walmustaxirin yaxfiru llahu lana wa lakum mbokk yi ñaan googu moom la yonent daan ñaanal armeel yi saa yu leen ziyaare da leen di nuyu ne leen yéen ñi nga xam ne yéen ay jullit ñu gëm yàlla ñuy tëdd fii yal na jàmm yàlla wàcc ci yéen ginnaaw gi mu ne ah bis dana ñëw ñu fekk si leen de ma ngay fàttaliku de ginnaaw gi mu ñaanal leen yàlla njéggal ñoom ñi fi jiitu ñun ñi leen di ziyaar it ñaanal suñu bopp njéggal ñaareel bi mu ñaanal leen yërmande ñoom ñi jiitu ak ñun ñu leen di fekk si bu ëllëgee ñetteel bi mu ñaanal leen jàmm ñoom ñi jiitu ak ñun ñu leen di fekk si bu ëllëgee mbokk yi remarque bi nga xamante ne moom ngeen di njëkk a def mooy ñii ni ñu baaxee waaw lu tax kenn tabaxul seen yi defal mbokk yi ndax tabax ki nga koy tabax ndax dana jariñ néew bi dara ndax néew bi na ci biir bàmmeelam benn mu nekk ku texe ma nga aljanna wala boo xéewali aljanna yaa ngi koy fekk biir bàmmeelam wala mu nekk ku texee di mbugal ma di ko fekk biir bàmmeelam ki nga xamante ne dafa texe xéewali aljanna di ko fekk ci biir bàmmeelam kooku boo ñëwee tabaxal ko faalewu la mi ngi ci xéewal yu ko tiim mi ngi ci beneen monde moom yëgu la kon moom du mooy jariñu ci tabax gi ko tabaxal ki nga xam ne dafa nekk ci mbugal mbugal mi di ko fekk biir bàmmeelam nga ñëw tabaxal ko waay waay bu doon da nga ko koo tabaxale jàkka jullit ña di ca julli di ca jàng alxuraan ñaan tuyaaba ja di ko fekk ci biir bàmmeelam bu boobaa mbugal moomu mën naa teggiku booba loolu moo ëppoon priorité waaye bàyyi loolu lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere ku tabax bàmmeel kon loolu rek doyoon na ngir ñu bañ koo tabax waxuma la nag yow miy dund tabax bi du la jariñ ndax danga da jël sa alal def ca te loo xamante ne amul benn revenu bu lay jural bal da ngaa wuuteeg ndigalal yonente alayhi salaatu wasalaam moom mi tëddit loolu du ko jariñ dara ndax mu ngi ci ñaari monde yooyu mi ngi ci mbugal wala mu ne ci bànneex te ñaar yooyu bu mu ci nekk rek du jariñu ci li nga ko defal bal boo ko ko defaloon ci loo xam ne jullit ñi dañ ciy jariñu bu boobaa loola man na ko mën naa yokk ay tuyaabaam ak i xéewalam wala mu teggil ko mbugal mi nga xam ne moom la ko yàlla teg kon loolu moo tax loolu ñoom ñii ñàkk buñ leen ñàkk tabaxal wàññiwul dara ci seenu cër fa yàlla buñ leen tabaxaloon ba mel ne panaal du yokk dara ci seenu cër fa yàlla kon loolu mooy remarque bi nga xamante ne ku ñëw fii da ko def kon ñoo ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi يال نانيو بوليك صحابه يي مارتير يي تبال الجنه ني دكالك عليه الصلاه والسلام تي الجنه يغنا كاوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين